vous savez Casamance dafa dafa nekk gox boo xam ne euh, bu làkk woon. Mhm. bi léegi sax. Mhm. Euh, jamono di dox président Senghor am lu mu def ci Sénégal kalunaay bokk ci Casamance Sénégal bokk ci Abdou Diouf am lu mu def Abdoulaye Wade am lu mu def Macky Sall am lu mu def ak lu mu nekk di def. mmh. jusqu'au moom où nous parlons okay. jusqu'à ce niveau amaguñu satisfaction à cent pour cent ci génne kalunaay ci lakku-lakkam mais tànn na tànn na tànn na d'accord au moment où nous parlons ñu ngi réaliser seen boucle la boucle des kalunaay waaw dañu koy dégg donc ñu ngi koy sant bu baax a baax. la boucle de Kalou Naye lu muy signifié lan lan moo fa nekk quoi lan lañ fay def instant bi boucle bi. bokkul bi mooy yoon bu mag bi. ok parce mooy tali bu mag bi quoi boobu la ñuy defar nag. donc euh, c'est euh, comme ça ngeen mën di. léppi ndorsal. Mhm. boo xam ne boobu mu téye Kalouna téye koomu Kalouna tamit. ok donte am na yeneen axe secondaire ñu ngi koy ñaan tamit pour vraiment mu tabaxal ñu ay axe secondaire yoo xam ne day accompagner désenclavement euh, dëkk dëkkaan yi gox goxaan yoo xam ne yu nekk ci biir a biir a biir. Mhm. su boobaa impact économique bi day gën a am solo.